ñoom dañ ko fayale woon bi ñuy jënd seen kër yi yu mel noonu dañu bëgg aussi ñu koy porter à l'Assemblée nationale alors euh, honorable sur le rapport de la Cour des comptes sa gis-gis muy lecture bi nga xam ne mën nañ ko jëlee ci yow par rapport ak surtout fi mbir yi toll xam nga rapport Cour des comptes en parce que le travail que j'ai vu qu'ils nous ont fourni ak euh, Mm. même si on a jeté le discrédit. Euh, parfois non non non parce que. oui seen euh, liggéey ak magistrat on les a même traités de politique. xam nga ki ko wax muy muy Mansour Faye. Doudou Ka Mamour Diallo dans un pays normal. dans un pays normal dans normal la Cour des comptes il y a le rapport quand même Prodac Prodac mbay ñaa mbay ñaaki ñu ñaa informé que Amadou Ba moo ko moo ko moo ko yoole quand maintenant aujourd'hui on pense que on nous dit que taisez-vous nous volons taisez-vous nous volons réew mi am nañu toutes les institutions c'est-à-dire le Sénégal c'est l'un des pays boo xam ne au monde cest à loo soxla rek ci control wala ci administration am nañ ko maintenant c'est la mise en œuvre de ces politiques man ce que j'ai vécu le plus difficile dans ma chair c'est l'emprisonnement de Khalifa boo déggee temps yëpp ñu lay wax ne pratique parlementaire pratique nangam et madame la maire xam na ko tout le monde sait que comment fonctionnent les mairies oui. malgré les témoignages et tout jàpp nañ ko tëj ci kaso bi Mbaye Niang malgré moom moo wax ne diw la tey sa Mbaye Niang mooy jël nit di ko yóbbu prison mën naan dina tëju c'est-à-dire euh, au Sénégal le problème c'est quoi on a un problème de leader xam nga luy problème il faut qu'on arrête la jouissance la jouissance mm-hmm. le Sénégal dañoo jël pouvoir def ko jouissance en Afrique nguur nguur c'est-à-dire les gens c'est pour ça que les gens s'agrippent au pouvoir tey Macky Sall ñi mu àndal nit ñaa ngay reyante Mbàkke ils sont dans les hôtels toog di ëffal policiers gendarmes yi. Mm. ak les opposés ak les opposants. te c'est eux qui sont sur les plateaux pour moi j'aurais tey xalaatoon naa ne tey les gens de l'APR dañuy jóge cees dem Mbàkke jàppale ci policiers yi. <laughs> mais ñoom ñëpp boo demee Thiès Mbour ñu nga ci hôtel tëdd seen télévision di seetaan gars yi di xeex. Mhm. nos frères parce que policiers yooyu gendarmes yi ak opposants yi c'est la même famille. oui loolu moo tax le rapport de la Cour des comptes c'est des gens à encourager. benn mais li mu wax la d'accord il faut que sénégalais yi bàyyi de se mouvoir. une semaine quinze jours ñu fàtte. Mhm. mais cette fois-ci. souvent on dit que le Sénégalais est amnésique hein. oui <laughs> la chance qu'ils ont avec l'Assemblée nationale cette fois-ci. Uh-huh. non ça ne se passera pas comme ça. Mhm. suba ak ngoon ñu ngi fii nee naa la dans les prochains jours. vous verrez à l'Assemblée nationale loo xam ne non du demee noonu. ok très il faut que tout soit su non jëlee benn exemple. Mhm. on un mois après l'installation on doit installer la cour de justice. le président a refusé. le président de l'Assemblée ñu bañ la mise en accusation que ñu bañ mais cela veut dire que dañuy foog dañuy croiser les bras non dañuy dem assemblée nationale on va xëy suba. est-ce que loolu du may nit ñi li ñuy wax mu. waaw léegi ko dëggal suñu institution dafa mel ni maintenant et partout ah lépp dañ ko politiser. et puis mu amuñu ku ñu am na ku ko wax fii léegi kan kan la ñenn ñi war a waxal en fait. ko war a mais ñun assemblée. oui. dañuy par un exemple bi gën a grave. Mhm. on on nous donne un règlement intérieur boo xam ne jotuwu ak règle ay nit ñoo tëju seen nekk changer règlement intérieur assemblée nationale qui est une loi organique koo laaj mu ne la xaw ma ko xaw ma ku ko def on interpelle le président de l'assemblée xaw ma maa ngi doon ñëw fii laa ko fekk Abdou Mboye président la commission des lois xaw ma fii laa ko fekk quand les gens sont capables de faire de tels actes dans l'hémicycle aussi là ba on vote la loi les lois de ce pays te les gens sont capables de dire eh, xëy Mimi Touré eh, on convoque le bureau de l'Assemblée nationale pour la le président il met information plus nga ñëw ci buntu ñu nangu sa portable nga dugg ci biir yow président du groupe parlementaire on te dit que tu ne votes pas alors que le règlement intérieur de l'Assemblée dit que les présidents du groupe ont les mêmes prérogatives que les présidents et nga ñëw mu ne doo voter mm-hmm. cest à nga toll moo xam ne ko tu sors la salle et gars mu jeex c'est-à-dire tu sors tu n'as on mm-hmm. comme l'Assemblée nationale. c'est-à-dire on viendra à l'Assemblée. ok bu yóbboo Sénégalais yi gars dañuy xeex bu jaree xeex ñu xeex. <laughs> parce que bu dee amuñu benn recours loolu lañu am mais il faut mais, mais je vous dis mais comment pensez-vous un député à l'Assemblée nationale di ñëw assemblée di jël nu mu tudd war ngay ne. on vient d'être installé. oto yi fi nekkoon may nañ ko waa Bennoo dem nañu ak ñoom ñun ñuy dóori ñëw Macky Sall moo bind ne du ñu am oto. mais xanaa comment on va se xanaa daañu leen ko indemniser wala. indemniser waaw léegi bu ñu la yow. waaw ah, looy def da jël transport. ah njëgu oto bi lan la. non njëgu oto. waaw amul. chaque weer daañu la daañu mais oto est-ce que chaque weer li lay fay mën nga si jënd oto. tu es obligé de louer un taxi. Mm-hmm. le gars il prend un taxi. et quitte il paie soixante mille francs. aller retour pour une journée dix jours c'est combien six cent mille xaalis ba jeexul. ñoom tu sais ce qu'ils ont pas financer aussi des opposants. Ah, effectivement ce qu'ils ont dit. ngeen ngeen ngeen di. Ah, ah, ah, mais quand un pays. madame la maire elle dit que les mairies du ngeen am oto. Mm-hmm. c'est injuste. les maires du mm-hmm. mais Barthélémy Diaz on te dit que maintenant toi dans ta mairie. tu as si tu avais combien de directions maintenant tu n'en as que trois directions ou quatre directions mais xoolal ma loolu. Mm. une ville marché marché mairie Dakar moo ko moom. tu n'es pas avec moi dama koy jox Alioune Ndoye comment une comment une une mairie d'arrondissement. Plateau Batt n'a pas droit à une sécurité il n'a aucun <laughs> investissement. Mm. Alioune n'a aucun investissement. tu donnes un marché Kermel. d'accord un marché non mais c'est c'est-à-dire pays là ce n'est plus le problème des hommes politiques c'est le problème ñoo war a jóg. d'accord ñoo war a jóg alors sëñ Sallou on va peut-être faire le dernier tour de table mais euh, ak situation politique bi fu mu toll opposition bi yaa ngi koy wax sànq euh, que ni euh, léegi ñoom ñoo yor seen cëggal guy Ousmane Sonko dégg noonu ko fii benn instant mu ne au la même des coalitions yi fi nekk coalition Yewwi Gëm sa bopp yeneen coalition war nañu mën a am beneen cadre bu nga xam ne war nañu daje ñoom ensemble entre l'opposition ci li fi nekk ñuy dund di ko teg opposants yi mu dakk ak surtout xeexaale Euh, jafe-jafe bi seen combat tigi tey muy troisième mandat alors est-ce que cadre boobu jàpp nga ne mën na am jeexital ci surtout ak fi ñu jëm. tout à l'heure may def intervention bi alors que madame la maire euh, comprendre woon par li ma doon waxee en fait je parlais moi de ce cadre là. Mm-hmm. parce que dama ne boo gisee lan moo tax 98 marqué ma organisation bi nga xam ne moom lañ mettoon en place. Mm-hmm. pour l'opposition cest pour une transparence des élections dama loolu gisatuma ko. parce que à l'époque ils avaient amoon FRT amoon na après il y FAL ba alternance nu mais cadre boobu présentement ni amul ci au sein de l'opposition aussi boo xoolee déjà la révision de listes électorales jël nañ ko naj ko et ça c'est en contradiction avec la loi mm-hmm. amul benn cadre fi nekk nii de l'opposition mën a exprimer pour xeex loolu fu nekk nii même en 2012 sax da gisoon ne opposition bi jógoon nañ pour xeex daan ne il faut mu am euh, comment dirais-je une personne boo xamante ni neutre bu mën a gérer bu mën a diriger euh, comment dirais-je élection yi. Mmh. benn ministre mais à l'époque je crois Cheikh Gueye lañ tegoon ah pour mu gérer élection yi mais loolu amatu fi Macky Sall bi mu ñëwee lu mu wax ñoom seen wàllu bopp dañ ne ñoom élection c'est-à-dire ministre de l'intérieur ñoom ñoo koy gérer seen bopp. te loolu gisuma ba léegi opposition bi xar ci seen tànk parce que à l'époque aussi les gens s'étaient battus contre Wade imposé loolu moo tax ma ne champ politique toujours rapport de force la mhm. dafa am loo xamante ne su fekkente ne ka nga ko jaa ka ko euh, en tout cas ki ki nga ko digaaleel mënul cest à du du ci may dara il faut nga xeex pour mën a am loolu. mais est-ce que dina yomb. c'est c'est c'est non xam nga yomb non c'est est-ce que dina yomb politique vu ce qui s'est passé. ci opposition daara yomb ci cest à lu ñuy maye amu fi Abdoulaye Wade moo waxoon loolu daanaka politique lu ñu fiy maye amu fi. Mm-hmm. da ngay xeexa xeexa xeex ba am ay acquis démocratique Abdoulaye Wade fu mu jógee 1978 1983 88 ba 93 ba 2000 98 2000 mu doon accéder au pouvoir mais daf ko xeexa xeexa xeexa xeex jusqu'au bout bu doon tëdd noonu rek doom dara mais Abdoulaye Wade daf ko doon jaral lu ne tëdd na ci prison ñoom bàcc li fu nekk dugal nañ leen fa dóor nañ leen ba bëgg a dee. mais terewul amoon nañ un objectif ba ñu demee ba xam ne fi toll nii jaadootul finalement Abdou Diouf vraiment dans sa magnanimité aussi la il faut le dire quand même ubbi et gën a démocratiser dëkk noonu lay doxee da ngay dem benn instant boo xamante ni il faut nga am ay structure démocratique yoo xam mooy tax sa dëkk stable parce que imaginez Sénégal dafa tolloon foo xamante nii stabilité réew mi pratiquement réew mi amatoon benn stabilité et là gën a mooy ça s'est conclu par l'assassinat d'un juge en en 93. Mm-hmm. c'était déplorable mais loolu ko indi woon tension politique moo ko indi woon mais il ne faut pas qu'on revive encore ça. parce que le syndrome est là loolu lu ko indi toujours mooy bu amee ay frustration politique bu fekkente ne pour le pouvoir en place nangul def benn assouplissement par rapport ak ñi nga xam ne ñoom la sax langue politique bi mais loolu mooy indi tiraillement yi nga xamante ne moom lañ ko amoon dans les dans les années quatre-vingt-dix jusqu'en deux loolu nag. je crois que ki nga xamante ni moom lañ jox lenge yi moom bi muy ñëw dafa am lu mu fi fekk loo xamante ne nii pour man doy na ko rek njàngat vraiment ci ay leçons démocratiques am na fu sori foo xam fa la jóge Macky Sall devait être l'un des meilleurs présidents boobu dama bu mën a gën a renforcer la démocratie dans ce mais li ma jàpp mooy il a fait reculer la démocratie dans pays parce que yu bëri acquis démocratique yu bëri ñu amoon dañ ko delloo ginnaaw lu gën a banal en démocratie la liberté de choix da nga koy mm. remettre en cause yow boo war a dem élection maintenant tu utilises l' appareil judiciaire pour mën a éliminer des candidats pourtant Abdoulaye Wade avait bel bien la latitude en 2012 de le faire mm-hmm. Abdoulaye mënoon na ko def de mm-hmm. mais loolu c' est pas c' est contraire au principe démocratique de ce pays là mais Macky moom ci wàllu boppam xamul loolu Et eh, l'alerte était sonnée depuis bi ñu jàppee Karim Wade parce qu'au départ on disait que Karim Wade jàpp bi c'est une demande sociale waaw c'est une demande sociale mais boo gisee procès bi ni mu mujjee nga xam ne ce n'était plus une demande sociale c'était une demande politique politique ex euh, euh, comment dirais par le pouvoir mm-hmm. mais nag xam nga li ñuy wax naan bu fekkente ne ñoom aussi opposition bi gis ñu woon président fi mu jëm xam nañ ne après kenn moo ci doon tegaat muy Macky Sall muy muy du moins muy euh, Khalifa Sall mm-hmm. Khalifa Sall a été la deuxième victime encore. léegi troisième victime bi ça devait être Ousmane Sonko. moom ayant compris que bu résisté wul du ci génn. moo tax loolu moo indi les euh, comment dire les affrontements de mars deux mille vingt <laughs> président bi mu ci jógee nag réflexion bi mu ci waroon mën a am. ba mu waxee ne je vous ai compris man je pensais qu'il avait compris mais malheureusement il n'a pas compris il n'a compris que ce qu'il veut euh, ce que son entourage veut mooy lan il faut l'armement au niveau de la police et de la gendarmerie, au niveau des forces de défense et de <laughs> sécurité. waaw il faut encore davantage aussi ah. avoir une mainmise sur la magistrature, sur l'administration, éventuellement aussi essayer de tout faire pour essayer de contourner, parce que quand j'entends le président dire que ce n'est plus un problème juridique, mm-hmm. non, ce n'est même pas un problème juridique. Mm-hmm. c'est-à-dire le problème qui se boppam c'est-à-dire dafa quand des hypocrites maintenant passent tout leur temps à dire que. oui oui oui mën na jël dossier mu yóbbu ko l' essentiel moom et ça ma ne que non il n'en a pas le droit yoonu conseil constitutionnel waru faa jaar. ok il n'en a pas le droit. mi ngi mel tey ñu ne Macron pare na deuxième candidat mais na jaar am na droit dem tu penses réellement. mi ngi noonu on est dans quel pays alors <laughs> madame le maire euh, ce cadre là dont on parle est-ce que jàpp nga ne war na mën a nekk euh, mooy au-delà des coalitions yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo formé wu euh, boole ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci kujje gi te xëy na bokkuñu gis-gis ci ci ci ci wàllu politique ñu def cadre bu nga xam ne daañu mën a boole seen doole euh, xeex ci li ñu jàpp ne moom la ñu nekk di dund ci ay jafe-jafe te ñu ñi di ko teg kujje gi maanaam kujje gi waaw man je pense que cadre boobu au-delà que mu war a nekk c'est nécessaire mm-hmm. C'est nécessaire dans le sens où par rapport à les engagements que ces différents candidats et de l'opposition vont prendre vis-à-vis avant ñuy dem di di di xeex ak euh, le pouvoir vis-à-vis du peuple sénégalais parce que ni ma la ko waxee tout à l'heure on a eu plusieurs présidents qui ont fait des promesses et jusqu'au bout yegguñu fa donc je pense que cadre boobu c'est important beneen bi mooy euh, comme je l'ai dit il faut une force de proposition quelles sont les solutions qu'ils proposent quels sont les projets yu ñuy pro loolu yëpp nag bu ñu ko tegee de côté mhm. mu nekk les principes yi nga xam ne ñoom ñëpp dañ ci war a taxawandoo en réalité xeexandoo ko parce que malgré tout ça j'ai j'ai l'habitude de le dire euh, li ñu boole moo ëpp solo li nga xam ni moo ñu moo ñu moo ñu moo ñu takkale parce que tey bu dee ñu ñëpp dañu ne ambition bi ñu am mooy jëlee fi ndóol bi ambition bi ñu am mooy répondre aux attentes des Sénégalais ambition bi ñu am mooy les jeunes yi nga xam ne ils sont là ils sont à l'attente de propositions qui pourront faire que ils seront euh, ils pourront avoir des euh, des activités génératrices de revenus lan lañ leen di proposer mhm. au-delà de ça tamit tenir un discours juste malheureusement nag tey euh, Sénégal par rapport à ce qui s'est passé en 2019 dañuy am tuuti jiixi jaaxaa parce que les gens dañuy différenci dañuy différencier un peu euh, leurs intérêts personnels ak l'intérêt du peuple mhm. ce qui veut dire que tey tous les hommes politiques dañu war a xam ni le peuple est assez ouvert d'esprit pour xam lan la bëgg naka la ko bëggee ak fan la bëgg moo xam ñu ne ci kou gi moo xam ñu nekk ah ci moo nekk ci ku kujje gi ak pouvoir bi parce que le peuple euh, bu ñuy ne même si c'est amnésique ou pas le peuple xam na li mu bëgg mhm. te tey comme ni ko tonton Gueye waxee tout à l'heure euh, la question de la limitation des mandats question la boo xam ni dépassé na ko la question pour les libertés individuelles la question la boo xam ni dépassé nañ ko tey am na ñoo xam ne bi ñu jàppee benn nit dañ ne non foofu lay yem ñu ñëw jàpp keneen euh, ñu ne foofu lay yem ñu ne sax du fa yegg ñu ñëw jàpp ñeneen ñu ne du fa yegg tey ñuy jàpp di jàpp di jàpp mën nañu sax man mii toog fii li ma fi wax mën naa génn tey ah, ah. <laughs> mën naa génn ni ah. la liberté d'expression les gens de l'opposition ñu daje. Mhm. beneen fait tamit et ça je je à le dire le M23 li doon particularité mooy c'était pas une organisation boo xam ni c'était juste euh, les gens la société civile. organisation la boo xam ne képp koo xam ne tu es engagé pour la sauvegarde de la démocratie bokk nga ci donc ci cadre boobu li ma ci yokk mooy ñu def cadre boo xam ne les gens de la société civile qui sont toujours engagés parce que y en a qui ne sont pas engagés et qui en réalité euh, roulent pour leurs propres intérêts malheureusement c'est les politiques souvent rek la ñuy la ñuy nuñ koy waxte la ñuy joxañ mais y a des gens la société civile aussi yoo xam ne war nañu tirer la sonnette d'alarme ñu ñu jox ñu ay réponses ñooñu ñu daje les individualités xam ne des forces de proposition ñu toog nga xam ne li ñuy proposer sénégalais en 2024 nous espérons que incha allah bu ñu yàlla mayee bakkan en 2029 prochaine élection yi duñ fi toogaat naan recul démocratique duñ fi toogaat naan troisième deuxième mandat duñ fi toogaat naan en réalité qu'il y a un groupe qui s'accapare des forces et des milliards des sénégalais pour le propres intérêts donc ça je pense que il faut que ñu travailler aller vers alors Moussa ni mu ko waxee aujourd'hui cadre boobu ñu ngi koy ñu ngi koy xaar et que c'est bu ñu déggee Aïda Euh, jàpp nañu ne également am na fi ay forces politiques yu nekk ci kujje gi ku ci nekk am nga sa xalaat ak sa gis-gis bu wuteeg xëy na ak sa naataango bi nga bokk ak euh, langue politique bi surtout nekk ci opposition bi mais est-ce que cadre boobu tey Ousmane Sonko waxoon ne euh, fii ak fan yi néew wan nañ ko mën a lancer est-ce que mën nañ ci xaar une formation comme comme gëm sa bopp ci buñ leen invité. gëm sa bopp dafa yàgg di wax nii. Euh, yaakaar naa ku yàgg suivre président Bougane yàgg nga ko dégg ci làmmiñam euh, muy wax ni il faut que ñu am benn cadre de lutte benn plateforme de lutte commune à toute l'opposition bu ko defee. Mhm. yenn combat de principe yi ñu koy xeexandoo. Mhm. loolu jàpp naa ni euh, kuy wut fu mu fanaan la ak kuy wut ku ko wétali. <coughs> maanaam ñu ñoo bokk les mêmes objectifs. d'autant plus que ñëpp ay opposants lañ sénégalais dañuy jaaxle bu ñu gisee ay politique yu nga xam ne ñoo bokk même yoon même kii ànduñu euh, ci côté kujje gi daf leen daf leen di xaw a jaaxal souvent nit ñi dañuy posé cette question là. non xam nga loolu pour euh, ku nekk da am ay propositions yooyu proposé mm. sénégalais yi. pourquoi pas voir. Euh, ku nekk aussi Sonko Bougane Gueye Abdourahmane Diouf. yeneen forces de l'opposition ñu ànd. président Macky Sall aussi. Mm. actuellement moom moo dajale sa opposition ba pare. Mhm. gis nga acte yi muy posé nii dafa dajale opposition bi. Euh, sans que sëñ Saliou mi ngi koy évoqué léegi. Mhm. Euh, président Macky Sall dafa bund xataal Karim Wade. Mhm. muy premier cas deuxième cas bi mu bund xataal président Khalifa Sall. mais troisième cas bi dañ koy fàtte di wax à chaque fois te duñ ko bàyyi xel. mooy le président Bougane. Euh, lors des lors des élections présidentielles de deux mille dix neuf. gis nga sama kër laa toog. bi ma commencé gis ñuy def benn streaming jël stade bi duy ko ba mu fees dell comme un nœud génne lu mat 700 000 parrains woo huissier muy certifié dañu toog ñu ne noo kii du dem présidentiel du dem. parce que loolu menace la ci pouvoir jël benn stade duy ko ba mu fees dell ba kenn amul foo taxaw. ba ci gradin yi ba ci pelouse bi nga duy lépp ci ay nit doo sànni mbatt mu tag nga indi 700 000 parrains ñëw teg taxaw woo huissier muy certifié. mais loolu dañ koy fàtte. Mhm. moom mooy quatrième cas bi. kon bu ginnaaw bu xalifa Sall jàllee Karim Wade jàll président Bougane jaar na fi. mais le président Ousmane Sonko doog a ñëw. <laughs> léegi nag. plateforme de lutte <laughs> parce que xam nga la moo xam nga la moo waral ñu koy téye parrainage. Mhm. moom mënuloo ko taqal ci wàllu justice. Mhm. parce que xam nga géré wul ay deniers publics.